17. wareef ak yelleef yi doomi aadama doon na way ci bépp diiwaan doomi aadama xam te tey nga mën a mooy toppee xem noonu tey nga mën a mooy tool yi. yéen a safoo seen émission xam sa yelleef fa tax na ponk yu am solo lees ci waxtaanee ci biir rajo bu mag bi di Alfayda FM seen émission xam sa yelleef fa dimanche ji yemoo ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru ko mai atum 2021 ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ne moom moo di dogot dogot gi ñu def ci yenn commune yi ci biir Sénégal lan mooy défi yi ak enjeu yi ñu fas yéene waxtaanee redécoupage territorial au Sénégal lan mooy défi yi ak enjeu yi di ponk bu am solo boo xamante ne dinañ ci dalal borom xam-xam bu mag xam-xamam màcc ci fànn armée bi di Daouda Thiandoum nek géographe naziste nek it ab urbaniste fekk baxa fii diwanu diwaanu Kaolack laaj ak tontu dina doxo ci digganteem ak rajo Alfayda dimanche bi 23 mai atum 2021 ci sen bir émission xam sa yelleef bokk moomeel yi la ñuy waxtaanee. la référence euh, jërëjëf Cheikh Diagne.

thème bi nga xam ne moo mujjee fës lool ci euh, Sénégal muy dogot dogotee bi nga xam ne daf nañ ko yenn ci pàcc yi dakaar wala sax ci yenn ci gox yi ñu koy wax de découpage administratif gën cee fës euh, Bambilor Sangalkam ak yu ni mel Alfayda FM euh, Sallo di indi actualité ànd ceek ak partenaire am bi ñu wax fondation Konrad Adenauer ci émission xam sa yelleef ngeen ci ànd ak Cheikh Tidiane Sarr ci kàddu gi. En ak que Meza sec ci coordination réalisation et la Ibrahima mais tay ñoo plaisir partager ak mom le débat notre ami et frère euh, suñu xarit Daouda aménagiste urbaniste géomarketeur ancien chef de service régional de l'aménagement du territoire de Fatik, Kaoula, kafrin Dakar et actuellement en service à Thiès beaucoup de casquettes ñu lay nuyu di ziar bu merci Seigneur, Cheikh jërëjëf euh, maa ngi lay xanaa rek euh, tàmbali par euh, nuyu suñu xalif euh, bu tedd. Mm-hmm. xalif général Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass yal na yàlla yokk leeram. amiin yàlla gën ko dëgëral ba mission yi nga xam ne am na ko pour dëkk bi am ko pour pays bi. Mm. yàlla sottil ko mu doon suñu njariñ doon njariñu askan bi yëpp. amiin su ma ko nuyoo nag nuyu naa képp kuy xalifa. képp mm. kuy saytu yëfu diine ci biir Kaolack. ci biir Sénégal ak ci biir aduna bi yëpp. gannaaw loolu bëggoon aussi nuyu autorité administrative yi fi nekk. Mhm. ak autorité coutumière yi nga xam ne mhm. ñoo fi nekk. nuyu tamit euh, le directeur général de la radio Alfayda. Mhm. elage Ibrahima Gaye mu jàllale ma nuyool képp kuy employé si biir rajo Alfayda bi. nuyu population bu commune de kaolak population bu département de kaolak population bu région de kaolak population bu Sine Saloum bu Sénégal ak wa aduna bi de maa ngi nuyu képp koo xam ne ngi déglu ci fi nga ci sa ak ci sa ak nu mu a ak jox la say wàccuwaay ñun tamit ñu lay jox si euh, euh, déplacement bi pas évident ak temps bi xat-xat bi waaye Sénégal waaye rawatina pays bu sell bi rek da ngay ñëw ndax euh, borom xam-xam nga ku ñuy sagoo nga ku ñuy ndamoo nga koo xam ne fu ne def na fa ay preuve waaye preuve yooyu mu ne saa yu ko Kaolack soxlaa rawatina rajo Alfayda day ñëw indi ay leeral en tant koo xam ne màcc na wala xam màcc na lool ci wàll bi waaye tamit mu nekk sax di ci liggéey jamono ji liggéey yu bëri ñu koy wax ci réew mi nga bokk ci ñi nga xam ne yéen a ko doxal bokk na ci li ñu wax redécoupage administratif découpage administratif la ñuy wax waaye gaay yi dañuy waxat redécoupage ndax actualité oblige bo doon ñu définiral monsieur découpage administratif moy lan. jërëjëf seigne Cheikh man euh, damay sawar si ni introduire introduire sujet bi té euh, bu notion yu léré rek. manam hum. li sujet bi ci léré rek euh, dégg-dégg bi day euh, tekkee. Mhm. day doon ben xam nga mhm. bo les ben mot. Mhm. soko que définirul ba am ci ben entendement rek. c'est clair na indi problème de compréhension. alors sur ces ces aspects là pour la effectivement dañ fi tok pour waxtan si redécoupage territorial enjeu et défis. alors redécoupage territorial nak wax nga ko le mot découpage. découpage ak redécoupage découpage buñ ko doon tekki mooy tey ñu dagg-daggaat maanaam dagg-daggaat lan dagg-daggaat gox-goxaati dagg-daggaat territoire bi. Hmm. alors bu ñu waxee tey ndaxte Sénégal dafa bokk ci àdduna bi Sénégal depuis conférence de Berlin en 1885 jàpp 1886 si le tubaab yi toogee woon ñu séddoo Afrique teg seeni règle tracée. alors si loolu tey ñun si lañ nekkee dëkk bu ñu tuddee Sénégal. Hmm. mais loolu taxul ba tey ñoom nañ ko dëkkee woon boo ko seetloo da ngay gis ne bi ñu tegee seen règle tracée. Hmm. dañu jël ñoo xam ne ñoo bokk benn population ñu diviser ko en hmm. maanaam tey ku nekk xam na ne Sénégal ak Gambie ay mbokk lañ. et pourtant ñii ay anglais lañ ñii ay français lañ moom la ñuy wax bokk ku nekk xam na ne Sénégal ak Guinée am nañ ay ay mbokk lañ ku nekk xam na ne Sénégal ak Mali. ay mbokk lañ. Mhm. noonu la dëkk yooyu ak dëkk ya ñu amee frontière tamit nekk ay mbokk. donc mhm. loolu y avait un découpage colonial. Mhm. boo xam ne dañ ko defoon ñun bi yàlla defee ñu am suñu indépendance nag tubaab bi nañ ñu découpé woon moom le professeur Mawlud Diakhaté naan. le territoire Sénégal Sénégal sénégalais a été aménagé. pour le déménagement de ses ressources. maanaam ñoom ni ñu dagg-daggee c'était tout simplement parce qu'il y avait une logique économique il y avait une logique militaire il y avait une logique coloniale qui était derrière mhm. Mhm. alors nous devons yàlla defee ñu am suñu indépendance suivre disposition pour mu nga qui nous moom nous ñu tubaab bi bàyyi looloo waral ñu def découpage génn ay régions des ay communes génn départements des communautés rurales mhm. donc nous fait fekk nous def dans le temps donc nous devons bu ñu

am nañ redécoupage territorial am nañ enjeu et défi défi xam nga suñuy wax enjeu maanaam mooy liñ ci mën a jëre lan moo nekk enjeu li nekk enjeu nag mun na nekk lu baax comme mun na lu bon loolu hmm. moo tax ñu naan bu ñu waxee enjeu dama koy xayma toujours naan samay étudiant parce que en même temps aussi je suis professeur à l'université Alioune Diop de Bambey alors euh, ah. may sama étudiants may déglu c'est clair alors donc dama souvent mes étudiants en leur disant que vous savez que tay mu ngi mel ni tey bu ñu nee ñaari mbër ñu ngi bëre Balla ak ki nga xam ne moom mooy am bëre champion de lutte bu fekkee ne moo challenger bi bis bu nangoo bëree ak donc bu ko enjeu bi Moy lan day doon nouveau champion de lutte. donc da qui gagner loolu. effectivement mais Balla Gaye bu nangul bëree ak mom tamit enjeu bi ah. bu daano day perte. effectivement donc la notion d' enjeu. Mhm. mun na am atu. Mhm. comme mun na am inconvénient. c'est clair alors cette notion de défi. Mhm. maintenant buñ ko doon définir défi Moy, tay manam li kat war naa ko wara muna def. exemple tay lutteur bobu ki nga xamne xamna xam ne Balla Gaye moo ko doole mu ne damay bëreek moom pour nangu couronne bi donc défilé pour moom mhm. pour mu mën a bëri gàll bal mhm. Balla bu ko daanee mu mhm. mën a jël titre de roi des arènes donc loolu mooy sujet bi redécoupage territorial deux points enjeu et défi enjeu et défi à travers donc euh, le euh, li nga xam ne moo jëm ci actualité bi donc euh, nekk lu am solo donc wax na ko ci lépp loo xam ne jëm na ci notion bi ñu toj toj ko waaye toj toj boobu nag sénégal bañ ko tojee monsieur thianum pour relancer waat la kon jamono ji ñu ci 14 région 46 département bu ma la ci actualité bi 117 arrondissements. jëm ci yeneen yi nga xam ne nag moom la donc muy 557 euh, communes euh, plus les 46 départements parce que kër massar dafa dugg kër massar ñu nekk ci waxtu nawet président dem fa tax mu ne dinaa leen def ngeen doon gox boo xam département naa ko érigé en département lu nu mel président mujj ko def jël ab décret ñu xaatim ne léegi Kër Massar dañ koy def département ñu dogo dogotee nag yenn ci pàcc yi nga xam ne ñoo nekk foofu en général su ngeen di def seen découpage yooyu monsieur Thiandoum en tant que spécialiste yan critère ngeen di tenir compte waaw euh, serais en fait euh, je peut-être préciser que effectivement 45 départements la pour le moment. Mhm. mais euh, l'idée de diriger la commune de Kermassar def département ñu parlons ma ci français bi des fois nak day ci mhm. alors ñu bëgg yobbu commune de Kermassar bëgg ko def département loolu moy indi 46 département mais pour le moment. Mhm. architecture bi nga mhm. sur le plan territorial. en effet nous avons 557 communes. 47, 45, 42 départements. et 557 communes dont 5 villes et 42 départements, ce qui fait 599 collectivité territoriale. c'est clair alors juste pour revenir si li nga wax xam nga tey dafa jaar ñu ci contexte bi parce que euh, bu ñu waxee découpage rappelé nga ko wax nga tuuti ne euh, inondation yi amoon Kër Massar la man dama bëgg rek juste ñu jéem a xool loolu fan la jógee parce que mo ñi permettre ñu comprendre alors tay bo démé ci ñaari téere yi nga xamné moy mooy planification bu Sénégal sur le plan économique et social moy le PSE sur le plan spatial moi le PNADT le plan mhm. national d'aménagement et de développement territorial ce que lay doxee ñaari tànk la que tant que jël suuf si tànk bii tant wax ci koom comme bi ak nit ñi ak mhm. nit ki naka lañ mun a de ci biir suuf si mhm. ñaari téere yooyu moom la la rappelé suñu en 2013 par la loi 2013 10 du 28 décembre 2013 nous nga créé le code général des collectivités territoriales nga xamné ne dafa am vision. Mhm. mune doter le Sénégal de territoires viables durables compétitif de territoires territoire viable. et porteurs de développement durable. Madame, li ma bëgg a cette notion de viabilité. Mhm. li ma bëgg a fofu moy ci il faut promouvoir ce qu'on appelle une meilleure cohérence territoriale donc en 2013 ça a été dit hmm. dans le code général des collectivités territoriales Tu connais lire tu hmm. taper sur internet tu vérifier une notion et ça a été dit là-bas hmm. un aspect c'est important en 2014 cette fois-ci Bini lançait le PS, e, le PS e a dit dans deux de ses objectifs stratégiques promouvoir la viabilité des territoires et réduire les disparités territoriales encore promouvoir la viabilité des territoires Madame dundalaat gox yi. dundalaat gox yi ba réduire. Mhm. disparité bi. Mhm. maanaam wàññi. wàññi euh, jafe-jafe yi. Mhm. yi nga xamné ne nañ ko ci yenn gox-goxaat ci walu développement. c'est clair c'est clair. ak ci walu accès aux services sociaux de base. alors bu ñu en 2021 moy année bi ñu nekk tay le PNADT e moy le plan national d'aménagement et développement territorial en vertu de la loi. 2021 12. 2021 04 du 12 janvier 2021 qui porte la loi d'orientation sur l'aménagement durable des territoires. Mhm. terrible il faut corriger les incohérences territoriales qui sont identifiées dans le plan national d'aménagement du territoire Nous devons corriger. Mhm. donc c'est vraiment pour te mhm. dire que. oui dafa am fu mu c'est clair Lol doyou. Mhm. bien évalué évaluer acte 3 de la décentralisation. Mhm. acte trois bi ko évaluer ñun. Mhm. daf netamit. tamit lépp loo xam dafa am ci incohérence territoriale nañ ko jubanti. donc xaymal naa la ñeenti téere. c'est clair. depuis 2013 jusqu'en 2021 y xam ne même discours bi c'est lañ nek di wax lan moi incohérence territoriale mhm. loolu la dégg souvent activer incohérence mooy lu jubul mhm. loo xam dañ ko war a jubbanti lu waroon jub mu am ay ay ay ay mhm. ñu donc incohérence yooyu tey bu ñu ko jëlee ñun ñi nga ay aménageur lañ ay bref ñi nga territoire aménagement du territoire mooy seen discipline L'aménagement mhm. aménagement du territoire Il dafa principe ay principes Qui sont daf mhm. ce qu'on appelle le principe de la réparation. Mhm. Madame, lu nous a ñu le principe de la répartition. C'est de bi c'est bi ñu le principe de la durabilité. Madame, sax bu le principe de la subsidiarité maanaam gox ba ko gën a ñu jox ko ko mu doxal ko. c'est clair donc boo seetloo principe aménagement du territoire cette notion d'incohérence dañ ne nañ corriger. que mhm. mu mën a ak cohérence. Mhm. Mhm. je sais pas si on me suit. parce que c'est important de camper le débat pour que les gens puissent comprendre. c'est très clair quelles sont les incohérences yi nga xam identifiées dans le PNADT. ça aussi c'est important dans le document dañu identifié quatre grandes problématiques. mooy ban ak problématique bi si njëkk mooy ñu ne dañu am problème mu viabilité spatiale Ben. ñu ne dañu am problème mu viabilité sociale ñaar ñu ne dañu am problème mu rattachement ou yenn village ñett ñu ne dañu am problème problème mu délimitation. maanaam gox yi des nañoo mën a dund gox yi des nañoo war a mën a am li wax espace bu doy gox yi des nañoo am li nga xam ne danañ mën di jagewante ba nga xam ne dund bi dana mën a baax. am koom-koom. très bien ak ban. viabilité spatiale buñ ko doon xayma wala ñu bëgg ko expliquer mooy lan mooy tey dañu seetlu ci biir Sénégal dafa am ce qu'on appelle l'exiguïté du périmètre communal. Hmm. maanaam am na commune yoo xam ne seen euh, gox dafa tuuti. trop te mënatuñu màgg. Hmm. benn ñu seetluwaat ci loolu ne dafa am ce qu'on appelle la discontinuité territoriale mu indi cette notion d'enclavement maanaam pour nga àgg tey ci sa chef lieu de commune. commune da ngay obligé traverser benn commune wala nga traverser waat yeneen commune pour mën a àggaat si sa si sa. bëri na ci bëri na ci. beneen bi ñu ne dafa am ay communes yoo xam ne pour ñu polariser seen zone yi éloigné dañuy am ay jafe-jafe. maanaam seen commune rëy na rëy boo xam ne ni tey pour que ñu mën a boole yenn village yi dans l'administration locale. Mhm. dafa nekk jafe-jafe. Mhm. loolu viabilité spatiale yi ñu retrouvée. c'est clair beneen viabilité mooy viabilité sociale maanaam amna ay territoires yu ñu gis ne dafa am ce qu'on appelle un manque d'intégration et d'affinité socioculturelle manam mhm. nit ñi dañ leen boole foo xam ne ñoom wuñ fa mhm. wuñ fa si diine wuñ fa si koom-koom wuñ fa ci cosaan ak aada mhm. waaye dañ leen vraiment foofu lañ leen boole mais bokkuñu fa fa bi le rattachement de village rattachement de village tey Sénégal dafa am village dañuy bëri na ci. Mhm. tey Sénégal am na village yoo xam ne dañ leen rattaché ñaari commune mhm. tey Sénégal am na commune boo xam ne amul sax périmètre. je mhm. donne l'exemple de la commune de Kotiari. dans le temps Tambacounda. Commune bëri na commune de. commune <laughs> Kotiari commune Kotiari. cest dire dafa am quatre communes. Uh-huh. yu nekk si biir commune bi. doo xam ne amuñ périmètre. c'est clair. xam nga ça c' aussi beneen difficulté. beneen bi ci topp comme. lu may expliquer mooy cette notion de délimitation. xam nga délimitation moom mooy cool yi Kaolack amoon na ko entre Ndiafat et la commune de Kaolack. entre mhm. Ndiafat et la commune de Passy ay commune de Passy. Mhm. etc. c'est des difficultés li ko waral mooy. Mhm. tey maire yi xamuñu réellement seen limite commune fa la yam wax nañ ko xamuñu ko li ko waral mooy limite yi nga xam ne nii moo am ci décret yi créé commune yooyu. dafa précisul. maanaam on a une imprécision des décrets. délit de délimitation de communes. c'est clair li ko waral mooy amul benn matérialisation délimitation. Mmh. li ko waral mooy amul tey si biir communes yi boo ko seetloo ancien communauté rurale yi bañ leen créer si nombre de villages la ñu basé woon. manaam mmh. mais pas sur la superficie. loolu moo waral tey. Mmh. ñu am ay jafe-jafe yoo xam ne. dañ ko observer. entre ñaari commune entre ñetti communes entre ñeenti communes. donc loolu mooy. li nga xam ne tey bu buñ ko diagnostiqué ci Sénégal ñun dañ ko gis comme jafe-jafe. Mhm. comme gis nañ jafe-jafe yooyu nag te comme ñun suñu liggéey mooy ñu jéem a def ce qu'on appelle la prospective territoriale. Mhm. c'est un peu comme la planification mhm. territoriale maanaam ñu xàll. suba ban développement la ñu bëgg pour suñu réew. est-ce que jafe-jafe yi ma liste nii yëpp dañu war a ne ñun suñu ne aussi. ñu bàyyi ko suñuy doom. non ne ñoom bu ñëwee suba ils vont le gérer. Mhm. wala suñuy sët bu ñëwee suba tax neen dinañ ko gérer. donc ñun tey dañu hérité ay jafe-jafe yoo xam ne jàpp nañ ne dañu war a taxaw ñu xam ne la Sénégal ñun ñoo ko bokk te dañ ko hérité si suñuy maam. oui mais dañ ko war a jox suñuy doom. Mhm. donc jaadu nañu jaarale ko ci. jaadu jaadu nañu jaarale ko ci lépp loo xam ne mooy yoon waaye lépp loo xam ne teg yi réew mi wax na ko ñu dalal ko wala moom mi nga xam ne moo doon àddu mooy di Daouda Thiandoum aménagiste Madame ko xamné xam-xam da màcc ou ci walum jubbanti gox yak goxadi waye waaye urbaniste géomarketeur ni ñuy développé suñu gox yi don timit euh, ku fi don chef de service euh, jamono ji mom mo jité lepp lo xamné moy ci service régional aménagement territoire C'est Thiès waye jiitu won na bu Fatick Kaolack Kaffrine ba ci bu Ndakaaru ñom ñi nga xamné ñom ñoy ñooy bok yi bokk nañ ci ñi nga xamné dañuy bokk wala sax ñom ñoy def lepp lo jëm ci walum dogot dogoté territoire yi jubbantiwaat ko ba nga xam ne principe yooyu ñu bëgg jaarale ko ci acte 3 ci vision boobu nga xam wax organiser le Sénégal en territoire viable compétitif et porteur de développement durable mu nekk ay terme waaye dañ ko war a jëfee ci texte yi oh. découpage 2011 jaxaay tàngoon na bii ci 2021 gis nga coow li na ci Bambilor Ndiagne j'ob. Bambilor yenn jëm ci kam ak le ministre Oumar Gueye ministre des collectivités territoriales. mais dama la laaj sank na la bi ngeen di découper donte sax da ngeen wax nga li nga bàyyi xel nii mais yan ak yan critère ngeen di tenir compte pour mën a def découpage bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci Dakar rawatina ca Kër Massar ak coow yi nga xam ne commencé na ko faa alors très bien donc bi ma waxee sànq si diagnostic bi. ku diagnostic boo demee hôpital ba docteur càmbar say wérgu yi sa yaram. yaram bu gisee ne da ngaa feebar da lay bindal ordonnance. effectivement ñun dañoo bind suñu ordonnance. Mm-hmm. suñu ordonnance mooy li nga xam ne gis nañ ko nañ ko jéem a jubbanti nañ ko jooyanti ci loolu si la autorité wu dëkk bi. Hum. son excellence le président de la république. jël décision ne ñu nañu xool yan proposition lañ koy def si loolu ñun au niveau de l' agence nationale de l' aménagement du territoire ñun ñi nga xam ne ñooy bras technique opérationnel bu état wu Sénégal ci matière boobu. liggéey bu rafet ngeen def. jërëjëf ñu ngi lay remercier baax a baax loolu moo tax mhm. programme national de correction des incohérences territoriales c'est un programme national c'est pas uniquement Dakar mhm. donc depuis ñaari at ñu ciy bëgg wax ba ñuy bi ça c'est très important à préciser mhm. nous on est des techniciens on fait notre travail ba ñuy bi pas notre ministre et on a concocté un programme national de correction yi ma la génneel sànq comme mhm. jafe-jafe ci loolu. Mhm. ñu gis ne tey il faut que ñu def ce qu'on appelle la recomposition territoriale le président de la république wax nga ko ba mu demee si inondation yi Kër Massar moo ne dañuy def Kër Massar département waaye loolu li ko undu mhm. mooy commune Kër Massar ni mu toll ak projection yi nga xam ne jël nañ ko ñun basé ko sur des paramètres combinaison ou plusieurs paramètres basé quoi sur des critères nous permettent nous faire une photographie de ce que ça va donner d'ici dans le temps. waaw faut que vous la parce que cette notion de critères pose encore plusieurs fois mais avant may ñëw des critères je juste sur euh, certains aspects. moi la combinaison de plusieurs paramètres. Hmm. paramètres il yenn c'est des paramètres sociologiques yenn yi c'est des paramètres démographiques yenn yi c'est des ah. paramètres spatiaux ou physiques. économiques y yi c'est des paramètres économiques yenn yi des paramètres culturels loolu mooy les champs d'étude. ensuite on a mis en place des critères. Mhm. critères mooy si lu ñuy sukkandiku. Mhm. pour jéem ko wax pour nit comprendre. waaw léegi nañ basé ci texte bi critères yooyu xaaral ma ñëw kam bi. waaw maa mhm. mais dama lay campel pour nga xam ne dafa am fu parce que oh, y' a une étude quand même dafa am une certaine scientificité dans la démarche. ensuite. waaw euh, tey boo doon soutenir sa thèse wala ngay soutenir sa mémoire dama koy parce que damay bokk ci ay pas mal d'étudiants euh, au niveau de l'université mhm. alors démarche quelle mhm. est la démarche que tu as utilisée. Mhm. alors bu ñu les paramètres il y a des critères. critères c'est des critères démographiques c'est des critères économiques. c'est des critères spatial la superficie etc. l'accès à la mer. accès aux services sociaux de base. etc. etc alors si critères yooyu yëpp bi nga xam ni def si lañ élaborer ay scénario mhm. maanaam xàll ay yoon. yoon yu bari yoon yi ñun nekkuñ ne ñooy décider mais ay techniciens lañ. effectivement ñun nekkuñu ñoo xam ne ni tamit mun nañu wax exactement suba na lay mel parce que duñu yàlla. Mhm. ay propositions ngeen on fait des propositions. et on a mis en place des propositions. oui propositions yëpp ñu def ko ci ay scénario. c'est clair. scénario yi identifier na ñaari scénario ban ak ban. du ma ci dugg ndaxte yep, teg nañ ko ci autorité bi muy le président de la république. Mhm. parce que ñun suñu liggéey. c'est mhm. c'est le président de la république moo war a mun a wax ne scénario moo ma gënal ñun ñu doog a mais scénario bu ne. Mhm. loolu wax pour assurer scénario bu ne dañ ko évaluer sur la base de la combinaison de ces paramètres. c'est clair scénario bu ne dañ ko évaluer sur l'analyse des avantages et des inconvénients. scénario bu ne dañu xool quelle est l'armature urbaine. quelle est la cohésion sociale quelle est la cohésion économique quelle est la cohésion culturelle vous vous que le lépp à ñaari mm-hmm. maintenant après si lañ gis euh, euh, au niveau de la place publique. Mm-hmm. mais il y a de la place publique information yi ngi a des nit ñi di ko wax. Mm-hmm. amul Ben bo xamné ni le président de la république retenir agum gouvernement. parce que nous bu vous décret. mais décret, à retenir su boobaa ñun la gëna mëna wax ci la fa mais comme yalla dafa man ma bokkoon si ñi nga xam ne ñoo ko liggéey. oui jàpp naa ne euh, li nga dégg ci kam wala li nga dégg ci Bambilor. benn scénario la. Mhm. benn scénario. et puis je voudrais à euh, taxaw fa parce que xam nga tey ñun au niveau de Dakar parce que Dakar a commencé le programme national de correction des incohérences mais biir région de Dakar ce n'est pas uniquement la zone de Sangalkam. 10 régions de Dakar. On en parlait récemment de Guédiawa et de Pékin. Merci. Ah, marche vous berce Et, et tout ça c'est ah. important parce que parce que aussi parce que aussi problème da ngay taxaw nga nga nga jàkkaarloog moom nga jéem ko corriger xam nga tey lu je te donne un exemple sur sur Guédiawaye Guédiawaye da nga am la ville de Guédiawaye et le département de Guédiawaye sont administrés par le préfet sur la même circonscription. Mm-hmm. maanaam. Mm -hmm. Madame, département de Guédiawaye. préfet bi. Mhm. cinq communes la. mom mhm. lay mhm. ville bi ville de Guédiawaye. cinq communes la sous préfet c'est-à-dire c'est la même circonscription. qui est administrée à la fois par le préfet et le sous-préfet. ça c'est une grosse incohérence qui est là. Nous on a proposé des solutions face à ça. au niveau de Kermasar comme nous avons créé Massar en commune. mais obligé en département pardon obligé nous avons yan gox-goxaat ñoo mëna a ak mom pour que mu nek département. nekk département. Mhm. té yeen def ngeen proposition yi. on a tout fait def nañ le proposition té ko sur la table. te yemuñ foofu. yemuñ fofu parce que dans la zone de Sangalkam. oui bi nga xamné ne mooy coow li. yaa wax 2011. 2011 xam nga li li li xewon 2011 man yalla dafa def ne damay def toujours ay recherche. oui ku dem Google nga tapé. Mhm. en 2011 bi ñuy découper l'ex communauté rurale de Sangalaka. nga xamné ne le Bambilor Bambilor était un village mhm. dans la communauté rurale de Sangalaka. manam ben village la won ci biir communauté rurale de mhm. Sangalaka. c'est clair alors biñu érigé Bambilor communauté rurale alors waaw bi érigé alors biñu ñu érigé mhm, bi euh, érigé Bambilor comme communauté rurale dañu dag manam Sangalkam ba nga xam ne moo nekkoon chef lieu bu communauté rurale bi ñu bàyyee ko ñetti village mhm. ñett ñett waaw Noflaay. Mhm. Njaaxiraat mhm. et Sangalkam. li ci des yëpp ñu yóbbu ko dans la communauté rural de Bambilor. Bambilor oui. à bu Kër Ndiaylo. population bu Kounoun. Kër Daouda Sarr. Cité Ngalab. ak li ko wër yëpp dañu génnoon di kaas. ne ñoom bëgguñu dem. Bambilor Bambilor. ça c'est très important oui. et li wax ni ku ko vérifié on se rappelle oui euh, rappelé wul on est en 2011 ça 10 ans màggati guñ mhm. ñooñu dañu génn baré tali bi ay pneu né non non ñom duñu dem Bambilor oui alors mënuñ ci war dara le président de la république defoon ay décision ñom ñu dem and ak Bambilor mhm. légui nak tay biñu ñëwé ñun ñu identifier des incohérences xam nga tay ñu ngi dans la région de Kaolack mhm. mais wa kawone ñu ngi may dégg kawone fan la bokkoon Fatick Fatick oui kawone fatigue la bokkoon oui et pourtant kawoon a ngi ni. dafay jage ñu waaw xam nga saa incohérence bu terrible mm, bu garaaw. mais corrigé nañ ko amutoon benn coow. Mm-hmm. kenn mosu ci dégg coow. parce que la population ñoom xam nañ ne seen lépp biir Kaolack -hmm. hmm donc aujourd'hui aussi bu ñu jëlee kaawu kawoon mun nañ ko comprendre comme la zone de Kër Daouda la zone de Kounoun, la zone de Kër Nous Lo nga xam oui boo wàccee autoroute bi. Mhm. si dëkk yooyu ngay dox. Mhm. boo génnee topp tali bi. da ngay romb meeru maire yi bu Sangalkam bu Sangalkam mu jàkkaarloo ak la sous préfecture de Bambilor. Mhm. <laughs> la sous préfecture de Bambilor ak maire bi <laughs> ñoo jàkkaarloo sa à la mairie de Sangalkam. et la sous préfecture de Bambilor. ñoo jàkkaarloo. yaa nga romb boo rombee romb noflaay di dem. nga doog a dugg benn sur euh, euh, une partie. de la commune de Bambilor Madame commune de Bambilor vous avez une banane, banaana bu jël rek placé mhm. à partir de l'autre oui pour mouvoir la commune de Sangal. c'est clair c'est clair yéen ay a ngeen c'est vrai ay techniciens ngeen def ces ANAT même a été félicité nous félicitons également. merci le DG Djigo. borom je pense hein? Oui, ouais c'est ça. Ah, donc nous, euh, ñëpp nous une rafetlu nañ ko parce que vous êtes des techniciens mais ce qui est très askani mon cher Daouda c'est dit, pourquoi waxtu ñu bëgg a def ab dogot dogotee dakaar ak enjeu yi nga xam ne moom la ñuy laal waxtaane ko léegi nii mu jëm ci développement gox yi waaye tamit tiraillement yi ak ni nga xam ne dañuy jëlee fii dugal fii jëlee fii dugal fii ñu bëri gis ne dafa am li ñuy wax wàllum politique surtout Bambilor ak Sangalkam pourquoi ñu ne jëluñu woon Sangalkam yóbbu ko ci Bambilor lu tax ñuy jël Bambilor di ko yóbbu sangalkaam mu doon ay beneen débat boo xam ne pourquoi cette heure moo jaaxal ni waxtu bi waaw xam nga xam nga euh, ki nga xam ne moo jiite réew mi moom la yàlla may sañ-sañ boobu ki nga xam ne moo jiite réew mi mooy xam heure bu ko bu ko jot ak heure bu jotu hmm. benn way ñaareel bi mooy ku nekk xam na ne loolu jaajuwul aajuwul sax peut-être nga nekk spécialiste ci domaine bi. Hmm. découpage bi bu mel nii boo ko defoon ay deux ans avant élection. foo manta aw di nga installé ay délégation spatiale. mais c'est le mo donne procédure normale. non non non non y' a pas de procédure normale ça dit qu'aujourd'hui que aujourd'hui aujourd'hui attention y' a deux démarches xam nga la en 85 la conférence de Berlin il koy def faalewuñu africain yi dañoo toog teg règle tracée parce que ñom ñoo en sañ-sañ bobu def nañ ko ba tay ñun si loolu la dund buñ Sénégal conférence de Berlin bobu moo tax buñ né Mali conférence de Berlin bobu moo etc. Mm-hmm. et cetera ñu ngi siy dund. Mm-hmm président de la république Mo même le code général des collectivités territoriales bi demander avis. def avis oui mais avis bobu teunkul ça aussi c'est très ah important c'est clair c'est très important ñuy wax li nga xamné que ki nga xamné xam parce que parce que moom day décider. en fonction de ses orientations stratégiques. moom mooy xool une décision. Mhm. ñoo gën a optimal ñoo gën opportune. Mhm. au moment idéal. Mhm. mu mettre sur la table. c'est clair on tend vers des élections territoriales. élections locales Nous ngi waaj sept mois bientôt. dans sept mois donc élections territoriales yi tey bu fekkee proposer nañ corriger incohérence territoriale à l'échelle du pays. Nous gis né fi kat buñ ko deful légui wala buñ ko defoon à deux ans des élections da ngay obligé bu installé fa ño xamné ne nii ña fa dëkk fa la len mhm. donc la démarche voudrait que au moins quand même nga xaar le bon moment mais le bon moment moy on tend vers des élections buñu déné ba élections yi dinañ fal ay njiit yu parce que buñ ñu ko defutoon tay dañuy dagg ben commune foofu mais le président mun na wax né je te nomme maire de la commune de Tel et man ma dem fa maire mais suis venu pour administrer uniquement. Mhm. parce qu'en général général suñu defee délégation spatiale. spatiale. Mhm. souvent dañuy jël techniciens que nous sommes. Mhm. yóbbu pour nous administrer gox goxaat yooyu. mais loolu du da ngay administrer ñoo il y ni yow faluñu la. donc l'idéal à mon avis moi que nous ñu ngi jëm ci élection ñu ban découpage bu que cohérent la mettre en place ban découpage bu que pertinent la mettre en place bu ko à ak code électoral bi. bu ñu demee ci élection yi ñu mën a fal ay nit ñoo xam ne ñooy yóbbu gox goxaat yooyu en terme de développement donc selon vous découpage bi wala redécoupage bi respecté na toute la procédure qui s'y est respecté na normes yi kon coow li jaru ko ci non coow li jaru ko parce que xam nga lu tax euh, euh, euh, yàlla na yàlla yërëm monsieur Sakho Ibrahima Sakho nga xam ne hmm. nii moo nekkoon secrétaire général du ministre de l'intérieur yàlla daf def ñu liggéey ci lii lu bëree bëri bëri dossier bi. Mhm. nee pour la ëpp na va et vient. entre ministre de l'intérieur ministre des collectivités territoriales et la structure technique que le gouverneur de Dakar a mis en place. Mhm. donc nous, dañ ci yàgg di alors c'est sur des bases solides c'est sur des critères yi ma la waxal sànq c'est sur des projections démographiques de l'ANSD moo tax ñu sentir que la nécessité aujourd'hui ce n'est pas ñu concentré dans cette zone de Sangalkam, mais dans le département même de Rufisque plus loin, c'est-à-dire dans la zone de Djamnyadjo. Oui, hein. ah, il y a, y a, y a et à cheval entre Nyarikobi. Oui. Donc aujourd'hui aussi, là, on a proposé une corriger les incohérence. Même sur le plan de l'administration au niveau local aussi, on a aussi proposé, vous nous disons, le Melni, la ville nouvelle de Djamnyadjo ban statut lay am. Hmm. c'est des éléments yo xamné ni duñu bayyi ñu bàyyi ba yëf yi sonn bu fa judd won oui xalé bu won tay si bu xam nga kenn dëkkagu fa. jamono jaaju kenn mais xalé bu judd won tay fa lañ koy hmm, hmm, donc c'est des questions yo xamné ni ñun on est obligé de faire des propositions à l'autorité et maintenant le dernier mot revient à l'autorité de dire que telle proposition. par rapport à ma vision. de développement du pays man ci lay am. Mhm. qui sera un pôle euh, de développement économique administratif avec euh, li nga xam ne infrastructure yu fa am donc jot na kon tamit ñu bàyyi ko xel euh, utal luñ ko comme li nga wax sànq statut moo xam commune d'arrondissement lay don ak yenen yu nu mel mais lu ñu jaaxal tey daude respecté nañ nga ne normes yi waxtaan nañ ci loolu mais tey enjeu bi ak découpage bi ak lep lu jëm ci réew mi élection territoriale yi est-ce que l'ini avec ak détails yi nga xamné mo am ci ci Sénégal muy incohérence territoriale ñom maire sen à travers le président du conseil départemental de Kaffrine Adama Diouf l'a nettement cité wax ko président ci sen journée nationale bi ñu ci walum décentralisation ci Diamniadio inco incohérence yooyu dem Dakar Jigenchor Kaolack Kolda Tamba partout dafa am mmh. boole ceeg limites limite que yi maire yi nga xamné chaque jour dañ koy Nyaulu muham xam kaolack gi ah waxna la sank bo demee pasi jàpp njaafat bo demee njaafat jàpp timit yenen ci ay gox waye timit pasi jàpp yi nga xamne ne jëm ci jorsa nak yu ngi mel ak kaolack gi ak ko won ak yenen ak yëpp yeen que faire pour ñu mëna xol ba ba wat wala proposer wat yenen buntu kay yo ne danañ mëna dimbalé gox ye goxaat yi ñu mëna dundu baña dundu li nga xamne ne lañu wax ay incohérence territoriale parce que solal na len très bien mom la wax typologie des incohérences territoriales li beaucoup d'incohérences. observées c'est ñu sur cette base que au niveau de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire on a élaboré on a concocté un programme national de correction des incohérences territoriales mm-hmm. et dans ce programme national de correction des incohérences territoriales

dem nañ ba problème de délimitation yi ngay wax xam nga li ko waral lan la. Mhm. dañoo am ay décret yoo xam ne ba ñuy créer yenn communes yi dañ ne sama commune bii kat maanaam boo seetloo au nord ma commune est limitée par la rue des Charrettes. Mhm. au sud ma commune est limitée par le champ des gommiers maanaam champ d'arachide par mhm. exemple la neexee. toolu gerte waaw toolu gerte wala à l'est ma commune mu ngi limité wu ci benn baobab. bon ci boobaa bi dewe nak garabu guuy bu garabu guuy gi dewe buñ ko fa dindé nak buñ ko dindé nak sa commune fa la yemati. Mhm. ko bu fekkee né champ de gommier bi jek jek né ñu changer ko. de lotisser ko def ko ay kër fa la champ de gommier bi nekati xamatuñ ko. Mhm. buñ né tay rue des charrettes ñu jek jek ñu def ñu dindi rue ba. tuddé ko lenen tuddé ko lenen fan la jëm xamatuñ ko. lolo tax ñun si programme bobu dañu mettre en place une nouveauté manam dañu dem ba indi ay référence technologique dañu dem ba jël tay les coordonnées x y ça c'est la première fois de dans l'histoire du Sénégal. Mhm. d'un tay GPS bi la utiliser ba nga xamné tay ce yow ce maire bo nekkee maire commune X tay nga nek maire commune de Kaolack soo bëggee xam limite commune de Kaolack il suffit juste nga rentrer coordonnée X Y. Mhm. commune Kaolack bi yépp mu jox la mu jox la ko. Mhm. satellite bi nek suñu bop mu tax ñuy téléphoner fi ak téeméeri at fi ak ñaar at mu ngi fi donc coordonnées yooyu noonu tax na tey yow heure boo soxlaa xam sa délimitation précise sa commune fan la toll sa biir bureau jarul ngay génn ah ndaxte créé nañ l'observatoire national des territoires maanaam tey dañu jël ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc si wàllu technologie ñu créé benn observatoire national des territoires boo xam ne ni tey mooy base de données boobu yooyu yëpp moom moo koy gérer. maanaam yow boo connecté woo ci biir plateforme bi à partir de yow fi nga nek di nga mëna xam dans une représentation cartographique ce commune parlent la yem ci wàllu x y te yemul foofu mhm. amna benen outil buñ ci moy tay commune même ni mu développé ni mu développé mhm. sur les sur les dernières années manam bo bëggee sur les dix ans wala sur les vingt ans yi nga xamné mo jitu avant yow bo communes, xam commune bi ni mu développé woo ñun tay à travers ce qu'on appelle la télédétection dem nañ ba tey di nga mun a superposer benn gox nga xam nan la meloon y a de cela vingt ans. c'est clair donc c'est des c'est des c'est des outils comme ça yoo xam ne teg nañ ko tey. lan moo ko yéexal non ce qui yéexal en fait euh, li ko yéexal en réalité sax parce que quand même parce que kenn du ko jiitu si si. c'est les politiques hein. mbaram non je veux dire. en fait man ne ma wax ci politique. parce que du man du ma politicien. moi je suis un technicien. ah mais je suis président des politiques. c'est les politiques de manière générale. non l'aménagement du territoire ce koy définir xam lañ définir c'est une politique volontariste de l'État man li ma ak li may liñ may fay. mais réalité bi définir. non rek une politique volontariste de l'État. c'est ça l'aménagement du territoire. c'est bien à partir de là aujourd'hui qui a am prérogative. faire de l'aménagement du territoire Madame, xool gox-goxaat bi nan lañ koy tënkee nan lañ koy pour mu une meilleure cohérence pour une meilleure articulation. pour que nit ki fa nga ah. nga accès aux services sociaux de base au même titre que ñi nekk Dakar Mhm. voilà c'est moy Nous et aménagement du territoire c'est une politique volontariste de l'État de l'État volontariste de l'État mais ku ne état ak euh, nous donc euh, les hommes politiques nous ñuy nous ñu ci xam-xam nous arrangé ñom à travers donc leur prochaine élection du ñu soucier wu lu bari ci li nga xam modi génération bi di ñëw génération bi di ñëw daaw de ñu wara a soucier wu ci ñom jaaral ko ci suñu espace yi suuf danaka amatul ci dëkk bi yëpp dogo dogodee nañ ko jox ñi nga xam ne ñoo di yenn ci borom doole yi amna yenn gëkk yo xam problème foncier bari na fa président dëggal na né problème foncier amna muy suuf yéen seen xam-xam ak li ngeen proposer président nan lañ mëna def ba dimbalé gox yeeg goxaat yi espace yoy ñu mëna a nous ñu ko exploiter parce que c'est c'est un problème. waaw xam nga euh, euh, euh, loolu la lépp li ko la loi sur le domaine national je pense que cette loi mooy loi bi nga xam ne ni tey moo organiser Sénégal c'est quatre thématiques. oui zone des terroirs zone urbaine zone pionnière et zone forestière. Mhm. quatre zones yooyu. Mhm. tey loi boobu moo indi lu ci ëpp. Nous ne ça appartient à la nation sénégalaise ça appartient au peuple sénégalais en réalité je le dis très souvent. oui Ken sénégalais n'y mhm. a loolu fi Nek. Sénégal sur beaucoup des mhm. aspects. Mhm. nous acte 2 acte 3 acte 3, état bi yaatal ba sur la gestion jox a ay compétences nous gérer notamment sur le plan foncier sur le mhm. plan mhm. de l'aménagement du territoire etc sur les neuf compétences mhm. bien nga xam ne état bi dem na ba jox leen ko état bi daf leen jox ay prérogatives prérogatives yooyu mu leen jox nag lu si ëpp wax naa ko dafa am ay limites yoo xam ne héritage la limite yi ñu am ci héritage moy bu fekkee ne benn commune tey xamuloo sa commune fan la yam wala xamuloo sa communauté rurale fan la yam déjà bu fekkee ne da nga délibéré attribuer c'est un problème parce que mun nga empiéter. si beneen gox boo xam ne yow xamuloko wala. c'est clair ça c'est un aspect. Mhm. alors ci lolu nak waxna naa la la solution il faut que nous repréciser les limites il faut que nous fixer limite ba nga xamné ne maire bu ne dina xam fu mu yem une solution moy il faut que suñu maire tamit ñu rombu xexum suuf parce que xam nga lutax tay euh pour man loi bi daf leen jox 17 taxes. xam nga mhm. souvent c'est le problème que nous avons avec les communes. Mhm moy yow dañ lay jox 17 taxes ne la taxes yi ka 17 yëpp war nga ci wara a mais souvent boko ko ben taxe wala ñaari taxe mhm. ñom ci la ñuy ko exploiter mënuñ ko exploiter problème c'est un problème alors la solution pour man tay moi il faut développer ce qu'on appelle l'interterritorialité mhm. il faut mettre en place des projets de territoire xam nga xam nga mhm. exemple boo mes commune u Mbadakhoune xam nga commune u Mbadakhoune oui ak commune Kaolak, euh, il y a de cela quelques années ancien PCR bi dafa fait ba jël trois hectares jox ko chambre de commerce. Mhm. ne pour mu def port sec. Mhm. mais ça c'était une vision excellente vision. Mhm. pourquoi c'est une excellente vision Parce que ancien PCR ba fa nekkoon gis na ne su ñu indee port sec fii ci gox bi. day développer le bi. c'est clair ça c'est un projet de. day gaaw lool day gaaw day développé gox bi. xam kooku nekkul di xool et cetera ban frontière la am avec la commune de Kaolak ban frontière la am avec la commune de Xelkom Birane ban frontière la avec la commune de Kaol mais ce projet de territoire daf ñu beaucoup de choses mhm. donc tay lolu la ñaari communes yu dend ño bokku destin en commun mhm. ñaari commune yu dend ño destin en commun mhm. en général sax boo set seetloo yow man pratiquement ma est ngi Dakar ñu may fayé Dakar mais sama famille mu ngi Kaolack c'est-à-dire que li may gagné Dakar consommé wu ma ko Dakar. waa Kaolack ñoo koy consommé. Mhm. tey boo jëlee commune nu Ndiaffate parce que bu may ñëw moo may ñëw en tête commune nu Ndiaffate tey pratiquement ña fa dëkk nit ñaa ngi bay ainsi de suite mais bu ñu amee xaalis. Kaolack le marché Kaolack la ñuy mhm. ñëw jënd ci ndugu ci pareil pour kawoon pareil pour qu'on ak yeneen ak yeneen donc nous ñoo ñëpp ñoo bokk destin comme population bi dañu waratu ñu taxaw di wax ay problèmes de suuf problème limite et cetera mhm. Mhm. mais dañu war a élaborer ay programme yoo xam ne nii ku ci nekk di ci sa dans le domaine des transports dans le domaine de la gestion des ordures ménagères dans le domaine des taxes des redevances qu'on peut relever et des impôts mais aussi des projets yoo xam ne travail structurant mu mën a générer ay ressources pour toutes ces collectivités réunies dans un cadre unitaire bëri na ay solution waaye maire ci boppam ñoo bëggul xam li ñu bëgg def parce que problème yi ah, mooy problème de profil yi ku ci nekk ak say limites ah. yi nga xam ne jàngoo xamoo ah. te duñu seeti ñu mel ni yéen wala ñeneen ci ay nit donc muy ay problème te alors taxes yi ñu muy wax nii yëpp lépp wax nañ ko Sénégal le code général des collectivités territoriales wax nga ko sank ci deuxième phase am bi ñu waroon jëm moo doon orga moo doon aller vers des territoires euh, économiques hein, des pôles économiques c'est ça à travers l'intercommunalité l'interdépartementalité waye yoyu ñu ngi ci rek di xaar parce que communalisation intégrale bi Daouda war ngeen ci wax xamna da ngeen ci waxat mhm. waye Kaolack dal luñ ci bëgg modi ñu xol ni ñu ko mëna développer liñu dess des simili bëretul waye mhm. ban proposition ngay am pour Kaolack à travers limites yi suuf si ñu mën a xool ni nga ko ñangalaatee intercommunalité bi nga doon wax noonu ñu matérialiser ko mu am parce que bëggoon nañ ko am fii ci zone Koumbal bi à travers le centre d'enfouissement technique boobu mbalit mi nga xam ne euh, Latmingué moo ko war a mën a accueillir foofu mmh. yu mel noonu ak yeneen projet de développement boo leen xelal gars yi ci wàllum gis-gis lan lay doon waaw xam nga euh, euh, gis-gis dafay rekondiku ci ay jafe-jafe maanaam pour nga mën a joxe ay orientation il faut nga càmbar mhm. nga càmbar ce qu'on appelle un diagnostic territorial mhm. diagnostic territorial boobu moo lay permettre nga mun a wax mhm. ne kat man sama commune bi fii mooy force am c'est clair fii mooy faiblesse am force bi mu am su ma ko sukkandikoo war na ma mun a indil lii war na ma mun a lale xam nga la commune de Kaolack tey buñ ko seetloo ak commune yi nga xam ne ñoo wër yëpp ñoo bokk benn destin tay la commune de Kaolack il y a des am ay difficultés si un projet est xamné limu demander mu si hectare mënu ko installer dans la commune mais mu yóbbu ko installer ko dans la commune de Khelkombiran. Birane mm-hmm. Mm-hmm. wala mu installer ko dans la commune de Sibassor mm-hmm. parce que l'idée c'est quoi l'idée c'est que tey a un projet dans cette commune tout de suite di nga développer ay infrastructures talibi bi tali bi di nga ko ubbi courant bu dina courant dina te sa commune mhm. donc ça veut dire que les redevances day ñëw gis nga mhm. le marché bu mhm. ni mu polariser woo gox ñu wër yëpp c'est clair ñëpp fi la ñuy mais pourtant dëkkuñ te nit ñu ngi jógee Fatick nit a ngi jógee ba Kaffrine nit a ngi jógee ba djurbel ba ñëw def course commune de Kaolack versé fi xaalisam donc l'intérêt mooy quoi tey sama rayonnement wu commune fan la toll sama rayonnement wu commune foofu mu toll tax na ba tey même cette notion de territorialité daf nekk un débat les gens commencent à se dire la notion de territorialité bu territorialité mooy le territoire et l'identité territoriale. Mhm cette notion de territorialité dafa dem ba bataille aujourd'hui il y a une connexion internet est-ce que n'y a pas un pays boo Google est-ce que aujourd'hui Google ce n'est pas un pays mhm. qui polarise beaucoup de monde est-ce que Facebook aujourd'hui mhm. Mhm. c'est vrai que amul de souffle mais Facebook tenu de le polariser dans le monde et pourtant on peut parler donc cette notion de limite des territoires que grâce à un projet de Facebook Nous sommes on est interconnecté ñun on est relié non nous le war voir tëju ne man kat sama euh, sama sama sama sama sama sama superficie bi ni mu toll nii man si laay lëkkaloo bañ nga ko sax ba booy lotir da ngay dem ba frontière ba sa commune fa mu yem ak commune ba nga xam ne ni moom nga dendal mhm. nga commencé lotir foofu pour fixer benn commune bi pour mu mën a màgg ce n'est pas ça qui développe mhm. ce qui développe mooy nga mettre en place ay équipement nga mettre en place ay infrastructure nga mettre en place des projet structurants yoo xam ne nii da nga naan mhm. naam lii mooy sama différenciation en mhm. termes de euh, potentialité de développement nga énumérer stratégie Accès que sur cette différenciation mu mën un vrai développement un vrai développement Daoud aménagiste euh, urbaniste euh, géomarketeur ancien chef du service régional de l'aménagement du territoire de Fatik la Kafrine Dakar actuellement service à Thiès ak beneen casquette yoo xam ne lépp jëm na ci wàllum développement ak euh, lépp loo xam ne jëm na ko ci li muy xam ne moom lay wéy di proposer en tout cas Kaolack manqué wul des doomam yoo xam ne mën nañ ko dimbale bu baax a baax te yow ràññeeku nga bu baax a baax ci liggéey bi ak fi nga jaar yëpp.

alors euh, euh, dama daan bokk ma benn parti politique. Mhm. lu mooy Kaolack. mooy Kaolack mooy sama parti politique. Mhm. alors euh, jàpp naa ne comme li nga wax sànq Kaolack yàlla may na ko ay doom ay doom yoo xam ne ci domaine boo mënta dem la boo demee ci wàllu diine bi gis nga Nigéria. Mhm. gis nga tey Mawlana Cheikh Ibrahim. rayon maam. fii mu toll ci àdduna bi. doomu Kaolack te li nga wax ci man moo wax ci moom. maanaam. stratégie de développement bi on ko autour de Maulana Cheikh Ibrahim lim ñu mëna indil c'est extraordinaire. C'est clair et ben doomu Kaolack lañuy wax ce qu'on appelle wax le marketing. Euh, le marketing territorial en effet, mais par ce qu'on appelle les identités remarquables. Et ces notions notion d'identité mhm. remarquable, pour le Maulana Cheikh Ibrahim Nek, tay développer wuñ ko, valoriser wuñ ko, te lim ñu mëna indil c'est extraordinaire. Te lolu ci walu bi la. Mhm. Bo jëlé ci économique, on en a tellement boo jëlee ci wàllu cosaan ak aada on en a tellement boo jëlee ci wàllu bu la neex daal mhm. macha allah mhm. Kaolack yàlla may na ko mhm. ko war may alors lan moo tax nag ñu ñoo ñëpp dajaloo autour d'un projet pour que ñu jéem a génne suñu gox bi ni mu mel man loolu c'est une question que je me pose maintenant comme li nga wax sànq élection locale yi ñu ngi ñëw élection locale yi ñu ngi c'est une opportunité pour que waa Kaolack ñu toog ñu xool quel est le meilleur profil Parce que ça, c'est très important. Ah, le profil. Le profil du maire, c'est très important. Ah quel est le meilleur profil Mais d'une pas Mm Quel est le profil de l'équipe municipale parce que ça, c'est ça. ça aussi, ça aussi, <laughs> ça aussi c'est le plus important et les gens l'oublient. Oui, oui. L'équipe municipale. oui. le mm -hmm. est maire, mm on ne peut pas avoir un maire qui a le maire qui xam-xam mais ñëpp mhm. de day a day xaw a il mhm. faut que l'équipe municipale ñu xol ñan ñoo nekk si biir liste bi. ñu nekk ci biir liste bi ñan lañ. ak ban njëriñ lañ mën maire bi aussi comme tey dañuy xam maire bi kan lay doon. ñu xool ko. ñu xool uniquement intérêt wu pas des intérêts personnels. personnels parce que fii man da si rajo laa toog di wax. xaalis bi jël di ko maye. du fi maye lu fi ndéem du am kenn du fi maye lu fi ndéem si yàlla Abdoulaye Diack mayewul. Mm-hmm. ak borom rajo bi. waaw tey Ablaye Diack tuddewuñ ko sax mbedd ak Kaolack amul sax monument bu jël turam te lam doon maye à l'époque ñun information bientôt dana am xaba lu rëy luñ ko tuddee fii. mais c'est c'est exclusivité la Alfayda jërëjëf. jërëjëf et ça c'est important mais li bëgg wax foofu mooy tey. incha allah bu fekkoon ne maye xaalis mooy développé Kaolack konoon Kaolack romb na fu mu nekk. maa la ko wax parce que ñun ba ñuy jàng ba léegi ñu ngi maye. Mhm. te teewul Kaolack développé. Mhm. Kaolack li koy développé mooy c'est des idées. Mhm. Kaolack li koy développé mooy ñu dajale nit ñi nga xam ne yàlla may na leen xam-xam ñu asseoir ay projet wóori ay partenaires. mu mën a indi emploi ñañ doon may xaalis seen i doom wala seen i sët ñu mën ci liggéey. loolu mooy dëgg. loolu mooy loolu la ñuy tabaxee mhm. réew. Mhm. loolu la ñuy tabaxee gox. man gox yi may dem yëpp di leen jàppale si seen liggéey. Mhm. ni ma gis ñuy góorgóorloo ni ma gis ni ñuy taxawee man bu ma gisul waa Kaolack taxawee noonu. day da ngay jaaxal j'en félicite le maire de Sandiara Serigne Gueye Diop. ba ben, il a il a compris dafa comprendre. le maire maire d'Afrique. non xam nga le maire de Sandiara il a compris que bi bi président de la République waxee plan Sénégal émergent moom dafa ñëw ne plan Sandiara émergent. émergent grand maire et PSE Sénégal moom mu ne et actuellement yalla def na ne mom il est réseauté Sandiara est en train d'être de se développer aujourd'hui donc tay ñun japp naa ne aussi euh bu yalla défé ñu xam ban profil mo war pour Kaolack mhm. ñan ño ànd ak ah, ñoñu ñoñu ñooñu ñooy ñan mhm. japp war nañ mëna a changer génération bi et encore une fois la stratégie devrait être au cœur de Maulana Cheikh parce que pour man japp bis valoriser molana Cheikh Ibrahim dina est lu meuna nek la lu pourquoi ma sauté bi nga équipe municipale parce que bi commencé bind fan ci mm-hmm. profilu maire man ko mm-hmm. euh, équipe municipale dama ko parce que boo waxee maire bi rek te waxo ci équipe bi problème la parce que ci texte ba ci code ba le conseil municipal est composé du maire et de ses adjoints la la wax donc adjoint yi bu ñu matewul ma euh, xamuñu mënuñu xamul li ñu proposer xam nga xam nga xam nga problème la te lool war ngeen ci wax euh, aussi xam nga limay ma lay wax la oui euh, dama nekkoon réunion il y a de cela quelques jours avec le ministre du pétrole madame Gladima Gladima oui alors ñuy wax mu jël parole mu né euh, la commune de Saraya rien que dispositif sur le code minier la commune de Saraya reçoit 1,4 milliard c'est clair mais est-ce que tu te rends compte que l'État appuie 1 milliard euh, c'est-à-dire grâce à dispositif bi nekk code minier commune de Saraya a 1,4 milliard j'en suis sûr que boo demoon Saraya mais tu te dis qu'il faut 1,4 milliard oui oui et là ça amène à ce que li Oui, oui parce que aujourd'hui le vrai développement. Mhm. benn gis nga gis nga gis nga nit gis nga nit boo bëggee dem fenn te xamuloo yoon bi dangay jëli ñoo xam ne dinañ la wan yoon bi. Mm-hmm. bu fekkee ne bëgg nga dem fu sori. nit da ngay ànd ak ñoo xam ne nii liikat kat sëñ Cheikh yaa ma ci ëpp xam-xam. Mm-hmm. dama la koy dénk. Mm-hmm. ah foofu lañ toll de. foofu la àdduna bi toll mais kenn ku xam lépp mën lépp. amut fenn. ñu politique politicienne ñun nañu jël Nous sommes ne Nous am atout de développement nous opportunité de développement suñu suñuy doom. parce que nous avons un ko nous ñu dajalee suñuy doom man jàpp nous duñ ne dañ koy fa mu mais des romb fa mu Nous parce que ça aussi c'est très important. et puis deuk yëpp Nous tay dafa am genre plateforme bo Nous fa la nit ñi di sur les enjeux sur la problématique de développement mhm. local. Malheureusement, on n'en a pas. Un problème. Nous, à notre niveau, mhm. à notre niveau, vraiment, on essaie de rassembler tous les cadres de Kaola. Mhm. Parce que c'est important aussi que cadre Kaola au-delà des obédiences, des obédiences politico-partisanes, oui. qu'on n'est que Faral Foulaner. Vous voyez, l'intérêt général, c'est Kaolak aujourd'hui. Et c'est en ce sens-là que Taï, nous, Manahol, ki nga xamné ni mu ngi ci parti bi ki nga xamné mu ngi ci société civile bi ki nga xamné li la gëm ñu dajalo ñu nekkat li kan la yalla may xam-xam bi pour que mu mën ñu génn ci jafé jafé bi ñu dem jëli koku mu saafaral ñu suñu problème c'est clair pour moi c'est ça mm-hmm. aujourd'hui mais ce n'est pas des aspects politiques mm-hmm. élection locale yefu locale la mm-hmm. c'est une c'est une problématique locale et quand on parle de problématique locale il faudrait que ñu xol sur le plan local nan lañuy ñuy stratégie pour que mu mën a génne ñu si situation bi nga xam ne si la ñuy dund. jaajëfal nañ la Daouda encore une fois. mais euh, jeex na jeex na déjà. waaw ah, bon je pense que <laughs> je pense que vraiment c'est ça a été ça a été ça a été court. <laughs> euh, parce que li ñu bëgg a wax yëpp wax dëgg yàlla euh, mun naa wax ne li duub si nag bi yëpp xajul si cin bi hmm. ndaxte euh, tey question wu développement dañ ci war a gën a ça c'est très important. et puis ñu koy tënk par thématique. inshallah inshallah il faut que ñu jël par thématique. inshallah tay tey bu dañuy wax ci environnement bi on en parle de l'environnement. Mm-hmm. parce que tay aujourd'hui moi je le dis Kaolack dafa tàng ay pavage on en a pas besoin. Mm-hmm. Kaolack nañu reboiser ay garab c'est ça qu'on a besoin à Kaolack. Mm-hmm. ba ñu juddoo ba léegi on dit Kaolack dafa tàng tay bu ñu doon def chaque année ñu reboiser autant d'arbres bu ñu aussi là là là j'interpelle faudrait pas que ñu ne ñu noo Kaolack dafa tàng wala ndox mi daa saf xorom ku dem hôtel Aljana daa fes dell ak garab. Mhm. naa la ko wax. te pourtant mu ngi kawoon. <laughs> mu ngi ci mu ngi ci tefes. ci xorom si. xorom si la loolu li mu wane mooy c'est de la volonté. il faut juste nit ñi booloo. vraiment maa ngi lay gërëm sëñ Cheikh. Mhm. di gërëm euh, aussi le directeur euh, El Hadj Ibrahima Guèye di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon déglu wax dëgg yàlla mhm. lépp lu ci leerul rek peut-être sama matadi la. Euh, euh, yàlla mun na def ñu continuer ko ci yeneen yoon lépp loo xam ne leer na ci tamit ñu sante ko yàlla ndaxte moo ñu may doole bi nga xam ne nii tax na ñu mën a wax ba nit ñi mën ci am ak njariñ di leen gërëm bu baax di wax encore sama sawarte ak sama disponibilité toujours pour ñëw ñu leeral yenn aspects yi parce que c'est important ñu leeral yenn éléments pas des aspects techniques des aspects politiques du moins mais ñu leeral ñu xam ne ñun kat li ñu def si ay critères si ay fondement yu solide lañ ko basé. fondement yu moo tax Alfayda FM àndoon ceeg yéen ci xam sa yelleef suñu partenaire euh, fondation Konrad Adenauer dañu ci gunge ñu doon waxtaanee le redécoupage administratif wala découpage administratif dogoog dogote yi ñuy def gox ya goxaat yi enjeu ak défi àndoon ceeg Daouda Thiandoum aménagiste urbaniste. géomarketeur, ancien chef de service régional de l'aménagement du territoire de Fatick Kaolack Kafrin, ba ci Dakar waye jamono ji donne Thiès donne chef de service ba waye di jangale timit euh, ci université Alioune Diop Bambey nek fak professeur Sidibé l'ancien sous-préfet donc suñu professeur ñu leen nuyu di nuyu ñep El Ibrahima Gueye mo nekkoon ci réalisation bi Wali Maza sek ci xarala gi Cheikh Tidiane Sar ci kaddu gi way leen di ak programme doomi Adama doomi Adama doomi Adama doomi Adama doomi Adama doomi Adama